personnalité yu bëri yoo xam ne rek seen loxo taq na répp ci luubal guñ leen di tudd rek jëm ci wàllu koppar gu lewul yéenekaay bi di Le Témoin feelu ko ne rapport 2019 2020 jàpp 2021 bi OFNAC daal di fësal jox na dëgg kii di Ousmane Sonko Mamour Diallo ci jamono ji nag ay roxoom taq na répp ginnaaw enquête bu xóot boo xam ne rek amal nañu ko ñoom waa OFNAC dëggal nañu tuuma yi nga xam ne rek waa Pastef ngi ko doon gàll ci ndodd Mamour Diallo dossier bi nag jamono ko bi nag jëm ci yi nga xam ne inspecteur des domaines fi mu toll nii nag daañu ko jébbal procureur de la république source a dellu siwaat nag ci lu jëm ci wàllu rapport yooyu ak résultat yi nga xam ne rek tukkee na ci saytu gi ci waa nag doon amal jëm ci coowal 94 milliards yéenekaay bi dellu siwaat ci résultat yi nga xam ne rek moo tukkee ci saytu gi nga xam ne rek bu Ndiaye Jaxate doon na ko amal muy Mamour Diallo ak fi nekkoon ancien gouverneur bu Ndakaaru di mu Mouhamed Fall ñoom ñépp seen loxo taq na ci tuuma yi nga xam ne rek ñu ngi leen ko doon tuumal jëm ci wàllu luubali koppar nag ñeel ay transaction immobilière irrégulière irrégulière ak wàllu détournement de deniers publics jëm ci jotoon nañu ko fësal ba noppi jamono ji nag rapport bu ak bu 2023 képp publier gul ci jamono joojee nag bureau national bu Sénégal daal xam ne nag dogal yi nga xam ne moom la njiitu jël ngir ñu leeral amal nag dossier yi nga xam ne rek moo soxal concession yi chantier naval bu Dakarnave càmbar ko laataa ñoo yegg ci weeru juin atum liggéeykat ya ca Dakarnave ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax jàpp ne lu nu mel nag dafa méngoo ak rupture bi nga xam ne rek nguur gi yees gi fi taxaw nag moom la bëgg a indi te itam dafay wane ak leeraange goo xam ne rek bëgg nañu ko doxal ci wàllu bonne gouvernance ci ab bataaxal nag la ko seen secrétaire général bii bi di 24 heures addu jëmale tey wàllum décret yi nga xam ne rek dañu koo jébbal jëwriñ ji ñu dénk wàllu urbanisme ak collectivité territoriale jëm ci plan exécutif yi nga xam ne rek dafa soxal ville yeeg gox-goxaat yi Balla Moussa Fofana nag fas yéene naa yombal askan wi nag ngir ñu jot ci wàllu suuf si te it dina bàyyi xel nag lépp lu jëm ci seenub nekkin ngir fexe nag wàllum cet geeg cellal gi nag ñu gën koo nemmeeku ci biir dëkkinu askan wi moom jëwriñ ji fas yéene amal ay waxtaan nag ci ñi nga xam ne ñoo di ministère yi ñu dénk wàllum santé ak environnement addu jëmale ci beneen yëglekaay mu di la soleil dikk tey ji nag ci li li nga xam ne rek moo dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie ginnaaw ngan goo xam ne rek moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi koy amal jamono ji nag bi mu fa fekk jee nag naataangoom di Mouhamed bi ne waxtaanee nañu nag ay dossiers yu a mag yoo xam ne rek na ñaari réew yi ambassadeur Mauritanie fii ci Ndakaaru ne bile a rataxal ñaari dëkk yi jëm ci seeni jëflante Le Quotidien yëglekaay des ak Diomaye Faye nag jamono ji ña ngay gën a xool daal ni ñu mën a gën a lëkkalee seen doole jëm ci wàllu secteur gaz ak wàllu commerce beg napp gi la séglekaay ne Dakar ak Nouakchott nag ña ngay gën a seerewaat seen i coopération Sud Quotidien dellu si waat tey nag ci njaaxum yi nga xam ne rek moom la gouvernement bu Macky Sall doon amal bi muy jeexal mandaawam nag yéenekaay bi nag addu jëmale ci décret yi nga xam ne rek xaatim nañu ko ci wàllu passeport diplomatique recrutement yu bëri yi nga xam ne rek amal nañu ko ci biir ministère yi contrat yi nga xam ne rek jur na coow jamono ji nag jëm ci wàllu ndox meeg géej coow li nga xam ne rek am na jamono ji ci chantier naval yu Dakar Nav yéenekaay bi ne Macky Sall ba muy jeexal mandat mi nag def na scandale yu mag a mag nag tax ba régime bu président Bassirou Diomaye Faye jamono ji nag fas yéene naa jël lépp luy ay mesure nag ngir faase lépp loo xam ne rek moom Macky Sall def na ko fi laata moo génn réew mi évidence yéenekaay feelu ko ne publication rapport yeeg audition yi nga xam ne rek moo jëm ci ay responsable yu fi nekkoon ci ancien régime bi nag yéenekaay bi dellu siwaat ci ni Macky Sall sacrifié ay ñoñam l'observateur wax ci rek amal nañu ko ca parc Amazone bi nekk ci cité bu Colobane foofee nag lépp la ñu mu nekkoon barab boo xam ne rek ay agresseur ay étranger yoo xam ne rek bokk na ci ay soxna ak yalwaankat ñoom ñëpp fa daan fréquenté yéene kaay bi ne ndakaaru kay démb nag tàngoon na jër ginnaaw ay fitna yoo xam ne rek am na ci diggante Padois jàpp Grand Yoff doxoon ci diggante commerçant yeeg ñii di way takk der yi mu fekk jamono joojee nag marché central bu Thiès tablier yi nag mer ko ci kii di Birame Souleye Diop waral